عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وعاشق war na koo nuroo waaye nag roy yonantu yombut roy yonantu ci julli yenam daan jullee yombut roy yonantu bi ci nam daan wooree roy yonantu bi ci nam daan jëflanteeg waa këram moo gënoon a baax moo gën a tedd roy yonantu bi ci oyofam roy yonantu bi ci suufeel boppam roy yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci jaamu yàlla roy yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci xam yàlla roy ko taxul nga àgg fi mu àgg loolu rek dafa të dafa jafe rawat rawatina nag nga doon yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon sahaaba yooyu muy babacar siddiq radiallahu anhu omar ibnu xataab radiallahu anhu ousmaan bin affan radiallahu anhu ay nga ali ibn abi talib radiallahu anhu khadijatu radiallahu anha aïchatu radiallahu anha fatimatu radi alayhi assalaam ak mbooleem sahaaba yonent bi baay mu ne jot naa leen ci bëgg yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam jot naa leen ci xam yonent sallallahu alayhi ko xamee woon jot naa leen ci jege yonent bi nañ ko jege woon jot naa leen ci jeex ci yonent bi nañ ko jeexoon de borom xam-xam yépp lañu amoon ci ay xam-xam dox naa di jàng ba àgg fañ àgg de udriku man mada moo ñu baax ñëwñee ci nubuwatu ak wilaayatu de xilaafatu de a fuutu man baqaana gannaaw nag bi nga xamee ne jox ne teggin ne dox na ba jot sahaaba yi dox na ba jot ñëwayoon mu ne nag gannaaw loolu nag ñi des mooy ñooñ jamonoom ak ñey ñëw gannaawam nag a fuutu ñoom dama leen romb képp ku ma jamono ante rek man romb naa la man bàyyi képp ku xala ñëw sama gannaaw romb naa la doo jot sama lef ba péncam yàlla saxaaba yi nag moom jot naa leen la wax yonent yi jot naa leen la wax wali yi jot naa leen la wax parce que loolu tegginu chariatu la mu ne nag wa in tasaabaqa rijaalu góor yàlla yi bu buñ dajee yonent yi du ay góor yàlla naam ay góor yàlla lañ wali yi duñu ay góor yàlla naam ay wali ay góor yàlla lañ xalifa yàlla yi du ñu ay góor yàlla naam ay góor yàlla foofu nag moom bàyyi gisatu dara yàlla wax ci làmminam nag aadamiyatu nekkatu fa mu ne wa inta saabaqa rijaalu asbaqa yonent yi buñ dajee man bàyyi maay raw wëllu yàlla yi buñ dajee man bàyyi mooy raw su boobaa nag fan lay rawee ca zaatul aliyatu lay rawee ndax moom mooy jëmmi zaatu yàlla ji de sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu fan lay rawee mooy ci jaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxoon ne wadal abdu faanin laysa fii baqiya man damaa jeex takk takk takk takk ci yonent bi sallallahu dara ci sama ibrahima yootu man bàyyi loolu dafa jafe dégg nga faman wa ilal moustapha lil munaqili ñuy toxal ñuy bind bind leen wax leen man maay moustapha man baay bind leen wax leen wéy leen yuuxu leen dëggal leen man maay ahmad man baay man maay muhammad wa ma huwa illa ma wara al aqaawil la ca gannaaw muhammad la ca gannaaw wax li kenn mënta wax man la man maay jëmm yàlla ji kooku mooy moona cheikh ibrahima radiallahu taala anhu baay amul kem baay amul ku nuroog amul ku àgg fi mu àgg kon nag loolu nañ ko nangu bàyyi dafa garaaw bàyyi dafa raglu bàyyi dafa jege yàlla waaye bàyyi dafa nekk di yàlla nañ xam loolu du ku ñuy doon dono lépp déedéet da ngay jël ci moom rek du ku ñuy topp topp boo xam ne da nga koy jot kenn séenu ko kenn séenul pëndam kenn melut ni bàyyi ci xam-xam amul ci àddina bi kenn melut ni bàyyi ci jikko ju rafet kenn melut ni bàyyi ci sañse kenn melut ni bàyyi ci kaala bu rafet kenn melut ni bàyyi ci bët yu rafet kenn mënul ji bàyyi ci dox ay mbokk kenn melul ni bàyyi kenn melul ni bàyyi kenn melul ni bàyyi jàmbu xeebu bii ñu naan ko yow la yow a bàyyi la bàyyi la bàyyi la du man bàyyi la nañ nangu loolu sëti bàyyi nañ nangu ne mbir mi bàyyi la doomi bàyyi nañ nangu mbir mi bàyyi la sëti baay yi nañ nangu ne mbir mi baay la muqaddam yi nañ nangu ne mbir mi baay la naar yi nañ nangu ne mbir mi baay la du kenn ku may baay radiyallahu taala anhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima xuliqa wal xaatim lima sabaqa naasir al-haq bil haq wal haadi ila siraatika al-mustaqim wa ala aalihi qadri miqdaar al-azim sant baay ñaas alhamdulillah wa shukrillah sant Baay Ñas alhamdulilah wa shukurillah sant Baay Ñas alhamdulilah wa shukurillah